Voilà, tena ñuy fii nii jàkkaarloo surtout quand peut pompier bi amal fii la nuit de l'émergence nuit de l'émergence soo ko déggee nag loolu mi ngi ci walum nu ñuy def ba divulguer les réalisations du président Macky Sall tay nag ñu amal fii nii ki nekk suñu ñu koy un jeune leader bo xamné il a impacté la jeunesse ñu koy bàyyi pour mu présenter wu. Euh, man ma ngi tudd Massamba Dione di jeunesse euh, bu Cogère Ndiarème Limamoulaye voilà Massamba Diom ñu lay laaj euh, lan moo waral nga organiser la nuit de ne suis pas jeunesse su Ndiarème Limamoulaye ànd que euh, seen coordonnatrice de suma jigéen euh, Fatimata Tassi. ñoo amoon idée d'organiser organiser une nuit de l'émergence, c'est juste pour une mise à niveau sur les réalisations du président comme que ñi ngi dëgmal élection yi ñu la jeunesse bi comme nee la politique mobilisation ak euh, comment dirais-je animation euh, raison pour laquelle nous ñu toute la jeunesse républicaine de Ndiarème Limamoulaye en ceeg notre coordinatrice Fatima Tassi, pour euh, vulgariser les réalisations du président ñaax leen ci l'élection de élection yi nga xamante ni moom lañ dëgmal. macha allah kon ko dem ci coordinatrice bi di ko laaj ñoo organiser la nuit de l'émergence ak lan moo leen objectif principal. d'accord asalaamaaleykum maa ngi euh, nuyu ñëpp euh, di féliciter di encourager Massamba Dione ak les Amazones de Bay di Sey ci initiative bi ñu am parce que daanaka njaaram li maamu laay bëri na ay ndaw au sein de la COJER waaye ñoom dañu bokk ci nga xam ne dañu nekk ci kàngam ci biir COJER njaaram li maamu laay donc nag bu ñu ñëwee indi euh, lu mel ni nuit de l'émergence pour vulgariser les réalisations du président de la République mbégte kontaan lañ ci am gis ay jeunes yu taxaw taxawal le président de la république pour réélire ko au soir du 24 février tay na mu nek euh, mbecté mu nek lu nga xamné aussi c'est une première au niveau du département de Guédiawaye ay jeunes initié ko pour euh, dem wacc sur le terrain sensibiliser nit ñi ci li nga xamné le président Macky Sall def sur le territoire national euh, sensibiliser aussi nit ñi ci li nga xamné ni mom le maire de la ville de Guédiawaye def fi ci département bu Guédiawaye mais aussi sensibiliser nit ñi ci commune bañu dëkk maire bi fa dëkk lan la fa def muy le maire Beydi donc nak tay mbégte contenté bu baax baax la ñu am di sant di gërëm vraiment l'ensemble des jeunes de la commune de Ndiarème Limamoulaye plus particulièrement nak masse ak l'ensemble des jeunes yi nga xam ne nii ñoom ñooy initiateur projet bi nga xamné tay ñun mbégte rek lañ ci am en tout cas man en tant que coordonnatrice je ne fais que coordonner en réalité nous ñoo nekk ci de di booster les choses pour que ça marche donc nag tey dañu booster teg ay étape pour ay jalon pour que euh, COJER bu Ndiarème Limamoulaye dem ci kanam dem ci kaw euh, li ñu wax rek moom mooy euh, COJER bu Ndiarème moo njëkk toujours au devant de la scène avons aussi prouvé que nous ñoo au devant de la scène pour booster les choses donc nag li ñu ñaan rek moom mooy au soir du 24 yàlla may ñu ndam bu sedd guy bu nga xam ne nii dinañ ko fekk ñun l'ensemble des jeunes de la commune de Ndiarème Limamoulaye alors kon waa tey chers téléspectateurs de Guédiawaye info ñoo ko déggandoo kon wax ji leer na alors nag benn message bu ñu la question bu ñu lay laajaat mooy lan ban message nga bëgg a am pour jàllale ko ñëpp dégg ko surtout jeunes yi. waaw euh, message bi ma am di ko jàllalewaat ginnaaw bi ma leen jaajëfalee yéen Guédiawaye info ci seen liggéey bu rafet bi ngeen di def euh, wax dëgg yàlla yéen a ngi liggéey liggéey bu am solo ci côté média ñu ngi leen ciy remercier leen sant bu baax di leen ñaanal ngeen gën ci avancer. Euh, li may ñaan euh, toute la jeunesse sénégalaise nous dem ak dal ci élection yi ñu jëm c'est le Sénégal qui gagne suñu objectif principal c'est la réélection du président Macky Sall ñun en tant que nous ñun en am fugu ñun am le sang chaud nañ ci dem ak xel xam ni ñun ñoo bokku dem dans les règles de l'art inshallah allah yàlla euh, may ndam président Macky au soir du 24 inshallah au premier tour di woo toute la jeunesse sénégalaise ñu dem ci ak dal bañ politique politique ou violence te xam nous ñun ñoo bokk li nga xamante ni moom moo ñun ñëpp muy le Sénégal ñaan jàmm yàgg ci Sénégal yàgg ci àdduna bi vraiment je remercie tout le monde di wax également mention spéciale ma sœur Fatima Tassi. Mom aussi elle est une lionne elle est brave jambarla. la

donc donc wa téléspectateur de Guédiawaye info ñoo ko déggandoo lii nii rek ça montre les caractéristiques d'un bon leader comme ni nga ko a leader is someone who knows the way goes on the way and show the way leader boko déggé déggee mooy koo ne dafa xam yoon bi nek ci yoon ba ba paré di woon ci yoon bi te yaakaar naa ne waa code jeune code de Guédiawaye wane nañ ko ñu leen ti jaajëf bu baax di leen remercier leen jox kàggat ci yeneen anam merci beaucoup